auzu billahi min asseytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin saydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi internet bi yëpp ñu ngi leen di ñëw kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baal àq bu baax di leen baalu àq di leen ñaana yàlla jàmm di ko sàkku ci di leen ñaana yàlla mucc ak mucc leete di ko sàkku ci bu baax a baax a baax di wax na tey jii dañoo ñëwoon ak yéen ci seen chaîne bii nga xam ne mooy coranique les grands secrets ñu ñëwoon fi ak yéen indil leen secret boo xam ne secret bu jara am la ci kepp koo xam ne waajur nga ndax gis nañ ne jigéen ñi nga xam ne danañuy faral di ñàkk seen bakkan ci mat bari na lool jigéen ñi nga xam ne dañuy faral di maanaam ñàkk seen dund ak seen dund doom ci bu ñuy matu bari na lool ñi gisoon nag secret boo xam ne benn mag mu baax moo ko doon seddale tam nekk loo xam ne secret la boo xam ne wax fa dëgg yàlla gis nañ ci njariñ ndax luñ jariñoo la ñun mu nekk secret boo xam ne képp ku ko jëfandikoo incha allahu rabbi hi jox ko jugéen gu wérut def ko jox ko jugéen gu wérut incha allahu dana mucc ci jàmm incha allahu dana ëmb ci jàmm dana wàccee ci jàmm bu neexee yàlla ak yonent bi ñu leen di wax na nag képp koo xam ne bëgg nga ay leeral ci suñu vidéo yi wala yeneen vidéo yi mën jog ko ak ñun ci plus 221 77 286 38 79 plus 221 77 286 38 79 ñu leen di wax ne képp koo xam ne itam secret yi ñuy dugal mënal nga ko sa bopp na nga ko jëfandikool sa bopp bu ñu oo képp koo xam ne tamit gis nga ku la ko mën a defaral la nga waroon jox même bu newoon ay millions la nga ñu waroon a jox jël ko nga jox ko ndax moom la ko alxuraan wërsëgal ndax alxuraan ku ko mën a bind rek daf laa war a teral ci noonu ci lañ leen ni wane ki nga xam ne moom ngeen gis nii nga xam ne daf ñoo oo di ñu wax ne moom dafay bind lu maanaam dafay bind képp koo xam ne bëgg nga bind mën ngaa jokkoo ak moom numéro mu ngi noonu daanaka tontooguñ ko sax ba léegi comme ni ngeen ko gisee waaye daf ñoo oo xamal nañu ne dafay bind lu ñu ne nag danañ dugal numéro am ci képp koo xam ne bëgg nga bëgg ngaa bindulu rek ci secret yi mën ngaa jokkoo ak moom mu defaral la ko ndax nga jokkoo ak moom nga jokk ak nga jokkoo ak ñun benn la ndax xamuñ ko waaye gis nañ ne jaamu yàlla la te mën naa bind alquran te la muy bind noonu képp ku ko ci mën a jox mu bindal la nga jox ko ko moo gënal fuuf sax ñun nga nga nga jox ñu ko ndax liñ ci jublu mooy jariñu te jariñu nu mu gën a yaatoo rek gën a baax kon mm. ñu jàll ci li nga xam ne maanaam moom mooy secret bi secret bi nag comme ni ñu leen ko waxe boo koy bind dangay bind kun bismillahi rahmaani rahim comme ni ngeen ko bi gisee nii nga bind ñetti bismillahi rahmaani rahim ñetti yoo xam ne benn du ci bokk ak sa moroom bu góor bu jigéen ak bu ngóonu ngaana bu góor ak bu bu góor bu jigéen ak bu ngóonu ngaana nag boo ko déggee mooy boo xam ne danga koy maas tomb ko ak boo xam ne danga koy tomb te doo ko maas ak boo xam ne doo ko tomb doo ko maas bu ko defee da ngay ubbi xaa gi nekk ci laaxi gi nga ubbi miim gi nekk ci raxmaani ubbi miim gu nekk ci raxiimi xaa gi nga dugal fa huwa miim gu njëkk gi ci raxmaani nga dugal fa samadu miim gu ñetteel bi miim gu mujj gi nekk ci raxiimi nga dugal fa waxaabu boo noppee yëpp noonu nga koy defee comme ni ngeen ko gisee nii boo noppee nga def ko saafara saafara boo xam ne jigéen gi jigéen gu ëmb daf ci sangu juróom-ñaari yoon maanaam juróom-ñaari fan yi nekk ci semaine bi la ciy sangu li des mu ciy raayu mu ciy raayu ba mat juróom-ñaari fan maanaam daf ciy sangu juróom-ñaari fan raayu ci itam juróom-ñaari fan na fexe mu des bis ba mu war a bis bi nga xam ne ci la. ko mat daaleel mu war cee matu na jël saafara soosu mu raay ci biiram incha allahu rabbihi yàlla dana ko muccal ci jàmm te doom jooju muy indi incha allahu doom ji gudd fan lay nekk te du am barke lay nekk ñi ngi wax ne yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp yàlla yàlla musal leen ci xay am ci àddina bi yëpp te may ñu wërsëg may ñu jàmm àddina bi mi ngi naqadi mi ngi metti jafe-jafe yi bari na dund gi cher na waaye dund goog dund gu cher geeg àddina bu jafe gi yépp yàlla mën na koo yombal ba mu yomb ci nit ñi ba mu yomb ci borom kër yi yàlla na ko yàlla yombal ci nit ñi yàlla na ko yàlla yombal ci borom kër yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci lali hôpital yi yàlla na yàlla yëkkati leen ci anam ak wér yàlla na yàlla saafara leen ci anam ak wér ndax saafara bëri na ñaari pàcc la ki nga xam ne génn na àddina yëgatul métit kon métit ba mu amoon saafara wu na waaye ki nga xam ne dafa tëdd ci lali hôpital li koy gënal néewut mu génn àddina li koy gënal mooy mu jug dellu ci ay activité am yàlla mën na loolu képp ku nekk ci lali hôpital yàlla na yàlla fëgg sa bopp nga jug ci barki alqurani karim képp koo xam ne yaa ngi nekk ci prison yàlla na la fa yàlla génnee te musal la ba doo fa yàlla musal fa mbooleem ak képp kuy doomu aadama yàlla yàlla musal la ci nattu musal la ci nattu bi nga xam ne dafay dugalaat doomu aadama foofu yàlla nañ yàlla dimbale yàlla nañ aar yàlla nañ yàlla sàmm asalaamaaleykum